Ce mercredi 11 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar a notifié au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des tests du jour. Le bilan est le suivant. Un cas suspect est déclaré positif au Covid-19. Il s'agit d'un Sénégalais résident en Italie, arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. Sept autres cas suspects ont été prélevés et les résultats sont revenus négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe en outre que le deuxième test de contrôle effectué sur la ressortissante britannique hospitalisée au service des maladies infectieuses de Fann et revenus négatifs. La patiente est donc déclarée guérie et doit sortir d'hospitalisation dans les heures qui suivent. L'état clinique des deux autres patients précédemment déclarés positifs est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. Leur état clinique est stable. En conséquence, le Sénégal compte ce mercredi 11 mars 2020 trois cas positifs au Covid, au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. tey mercredi 11 mars 2020 Institut Pasteur bu Dakar jox na ministère de la santé et de l'action sociale résultat pré test def tey ci bés bi bilan bi lii la wone am nañu benn cas suspect bu ñu prélevé biñ ko testé kaa bi dafa positif ci coronavirus benn sénégalais la bu nekkoon Italie ñëw vendredi 6 mars fii ci Dakar jaare ko aéroport international Blaise Diagne mu consulté mardi 10 mars ëllëg sa bi mu seetloo ne commencé na am ay màndarga jàngoro gi bi mu consulter nag prélevé nañ ko ci centre structure de santé bi nga xam ne mu ngi foofu ci Touba isole ko actuellement mu ngi ñu hospitalisé service maladie infectieuse bu Fann am na yeneen juróom-ñaari cas yoo xam ne dañ leen prélever la woon mais seen résultat dafa négatif ministère de la santé ak action sociale mu ngi xamal askan wi ne ci ñetti malades yi nga xamoon ne dañ leen hospitalisé woon service maladie infectieuse am na kenn koo xam ne def nañu deuxième contrôle ñaareelu contrôle bi bi ñu defee ñaareelu contrôle bi contrôle bi dafa négatif loolu mooy firnde ne malade boobu nga xam ne ñu ko doon traité ci service maladie infectieuse wër na dinañ ko génne fii ci kanam ñi nga ñaar yi fa des muy euh, ñaari malade yoo xam ne aussi dañ leen déclaré woon positif ñooñu tamit seen état de santé mu ngi gën a am tan donc ci bésu tey bi mun nañ wax ne Sénégal ñetti cas positif la am yu ñu hospitalisé di leen traité service maladie infectieuse ministère de la santé de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi pour que ñu vigilant mais surtout ñu respecter mesures yi nga xam ne wax nañ ko ci wàllum prévention muy set muy aussi booy sëqat wala ngay ticholi boo mënul am mouchoir nga jël sa conc pour sëqat maa ngi leen di gërëm di leen sant